bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp yéenekaay bu nekk la la yitteel ci samedi tey ji enquête daa xëy dalal Aminata Touré muy wax ci digganteem ak Macky Sall waxit ci état de droit waaye it wàllu parrainage beeg élection présidentielle bi ñu dëkmal Aminata Touré tàmbalee laaj digganteem ak Macky Sall ana ku ci war moromam wëlbatiku it na ñetti weer kott bi mu desee ci élection présidentielle bi état képp kuy candidat déclaré war naa ñoŋal sa kaaraange jox la sécurité bu doy sëkk Aminata Touré nag nee na amul lenn lu muy rëccu ci digganteem ak Macky Sall nee na it la mu gëm mooy bu ñu yeggee deuxième tour opposition bi yépp ànd jàppale opposant ba gën a jege nguur ga di ko jàll ca ñaareelu tour ba candidat wu bennoo bi Amadou Ba booba jamono ci vox populi ma ngay gërëm Macky Sall mim ne jox na ko lépp deselu ko dara tànn na ko def ko premier ministre tànn na ko it mu doon candidat wam di ki koy wutu Amadou Ba nee na fi ak fan yu neew daanu fësal seen programme bi ñu nas ngir 2024 ndax élection booba di am ca at mooma dafa war a dajale sénégalais yépp Amadou Ba nag nee na titre Walf Quotidien booba jamono waxaat ci mbiri débauché ay kàngami Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao gi ñuy tuumal Amadou Ba jàppee loola ay ñaawte fi bennoo waaye li ñaaw dëgg source a nee na mooy li xew démb ca seen siège ba ñoom waa APR journal bi ne Diouf Sarr ak Karim Fofana ñoo fa doon xaxarante la ko waral mooy Abdoulaye Diouf Sarr dafa mere lool Abdou Karim Fofana ndax cérémonie parrainage yi muy organiser te boolewu ko ci la ca gën a doy waar nag mooy Diouf Sarr nee na Karim Fofana nekkul délégué régional Dakar bu APR loola waral ca réunion CCR bañ doon amal meerub yoof ba woon ne xew-xew ba amoon démb ci àjjuma ji kenn boolewu ko ci waaye loola lam ca war a def dana ko ca def dana ci it wax ak Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr wëlbatiku ne kenn ku bokk ci cabinet candidat benn Bokk Yaakaar bi boo demee it neel Amadou Ba man duma wacc kenn di joggi sama kaw sus aane démb danoo woote woon ne dañuy joxe ay parrainage waaye loola xeexoo la jur seen biir pompe gaz yaak yeneen taxarnaase am ñu ca jëlee gaañu-gaañu bokk ca benn journalist le regard booba jamono gis xeexum parrainage gu rëy ci diggante candidat yi ne ne ne ngay wone la nga am direct news naan ko benno bokk yaakaar moom boo maytuwul ndakaaru Thiès Diourbel Bambey Mbàkke ak Touba du fa am dara ci élection présidentielle yu ñu jëm yéenekaay bi di fàttali ni askan ya yeewoo ca yooyele gox mësuñoo def ak nenn benno bokk yaakaar te loola mësuñoo itam denc di ko wone 2019 moo ci mujj ca élection présidentielle ba yéenekaay bi nee na at mooma Macky Sall doonte moo gagné booba lépp élection ndakaaru moom li fi li fi Idrissa Seck ak Ousmane Sonko amoon sax ko président Lamtoro international Macky yéene kaay bi ne kon day des ci nguur gi ba ilaa yow mi dini abadan yéene kaay bi yeggee ñu it ay kàddu yum yëkkati moom Macky Sall mi ne ñam doonnu fa mu sokkeekoo jom lañu am fit ak ngor seen kàddu it Macky nee na dañ koo fonk lool luñ la wax mën nga aw téere waaye Macky nee na doon na ci ñooña itam bañ bañ ba tëdd ca naaj ba bañ lépp lu dul yoon bañ itam ku la toroxal Moustapha Diop ministre bi njënk wàllu industrie laas ba ko yenn député yi melee ni ñu ko bëgg a ci fullaak fayda démb ci assemblée nationale gañ ko doon nattale budget budget booba Dakar Press nanu dafa yokk tax yéene kaay bi gis yokkute ci Moustapha Diop Victorine Ndey booba jamono yokk loxoom yéene kaay bi di Les Échos ne ñaari téeméer ak fukki million la génnee ngir suqali wàllu mbay mi ca Sipa yu Matam La Tribune booba jamono naan téeméeri milliards lañ nar a génnee ngir benn million bu teg juróom-ñaar téeméeri tonni gerte yi ñuy xaar ci campagne bi ñu duggoo Sud Quotidien ni ko démb lañ ko doon waxtaane ca conseil interministériel ñeel campagne u njaayum gi ñeenti dogal yi Amadou Ba jël ba ca njëkk mooy njëgu gerte gi jàpp nañ ko ci 280 francs CFA maanaam juróom fukk ak juróom benn dërëm yéeni kaay bi ne fanweeri fan novembre bi nag ci la campagne bi door Vox ne bu ne buñ ko méngalee campagne bi weesu campagne booba nag la ca Amadou Ba wax di benn million ak juróom-ñaar téeméeri toni gerte yi ñuy xaar Abdoul Mbaye da caa am xel ñaar ca Walf Quotidien te ma ngay wax la ko waral Walf Quotidien booba jamono ñoo wannaasu dante gi ñu toj na dañ koy defaraat ak la ca laxasu yépp ni jiixi jaaxa 24 heures naan fi jara jaaxle kay mooy ORL Sénégal amu ca spécialiste yu doy réew mi li muy rëy rëy ak ni ñuy bari bari yéene kaay bi nee na juróom benn fukki ORL dong ñoo fi am réew mi quotidien naan ko mooy yow xanaa yëgoo li xew ci université yi journal bi ne Sénégal daa sore lool standard yi maanaam la yenu maanaa te àdduna bi yépp ànd ci yéene kaay bi nee na ñaar téeméer ak fukk ak ñetti enseignant cote lañu am ngir juróom-ñeenti junni yu te ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti étudiant noona la ñuy jaaree ànd ak bés bi dugg université bu ndakaaru yéenekaay bi nee na bu amoon leerit rot na ba jeex tàkk journal bi dikk ci li ko yëngal tàmbalee ci sengoor ak mai 68 Diouf ak année blanche ak invalide ya Macky Sall ak weeru jumeem gu tàng jër gi yéenekaay bi ne waaye ndokk ifak fak bu médecine de fi mu ne ba tey ñoo ngi des di sagal université booba way wayjur yi doon bëgg sak ba jox seeni doom luñ duggee ci gaal yi dem bitim réew ñu mujjee caa des l'observateur ci ñoom la xëy natt weesu na ko ndax dañuy jàpp ne seeni doom ñoom ñoo leen faat yéenekaay bi yeggee ñu ci xalaatu ab juriste waaye it ak psychologue bu ko jàngat booba jamono ci libération Juan Branco di joxoñ baaraam tuuma Élysée maanaam Macron ci mbiram Colin Faye nee na juróomi fan la ñu ko teg loxo yëgal nañ leen ko waaye ñu ca lenn jàpp gi sax mel ni dañ caa ànd libération wëlbatiku it wax ci coow li amoon ci licence Sénégal offshore Sud Profond ak Rufisque offshore mbiram pétrole ak gaz nee na African Petroleum daan nañu ko gàttal tax mu war a fay juróom-ñeen fukk ci téeméer boo ci liñ naan frais sirdi ak lépp lu état bu Sénégal fay ca kanamu yoon ci mbir mi doxoon seen diggante booba jamono ci réew mi ko sama la 24 heures ne la ko waral mooy boori këri Guy Marius Sagna dafa am gaayu fay taxawaalu député bi jege lool Ousmane Sonko jàpp ne ñooñe moom la rëbb waaye ma ngay artooti ca booba la yéenekaay ne lépp lu ko dal Macky ak ñamu àndal la Chine moom mel ni ku ànd ak virus rek rek ne duñu bàyyante yéene kaay bi di la Soleil nee na ñeenti virus ñoo fa indeeti épidémie bu tax réew ma yépp taxaw virus yooya di doomu jàngoro ya grippe ca la bokk ak pneumonie ak yeneen ak yeneen journal bi ne loolaa tax tiitaange gu rëy la askan wi nekkee àdduna bi it amee ko ndax fàttaliku mbasum covid 19 nga jóge woon ca Chine te gàllankooroon daanaka lépp ci réew yépp gàllankoor yi doon tagatémbel programme 100 000 logements Abdoulaye Seydou Sow ma nga cay wax booba jamono ca Sud Quotidien wax itam lan ca liggéey bilan ci vox populi lataa muy diggéene juróom-ñetti milliards yi ñu ameel concessionnaire di borom oto yi roñ mbalit daanu leen ko fay balaa njeextalu weer wi jongante yi gaynde yi nar a jongante ca bitim réew ci njeextalu ay bés bi moo yitteel stade yéene kaay bi ne paate barça lay janool gànna defanteeg manchester united jackson moom newcastle la jëm Aliou Seye ak Modou Anta lamb ji war dox seen diggante sunu làmb ca la xëy wax ne choc bu tàng jër la nar a doon ci samedi ji fii it la ñuy yem ci yéene kaay yi samedi ji ñaanal leen kendal ak jàmm ba altine incha allah

passé. Le candidat de Benno Amadouba, lui, se prononce pendant ce temps dans Vox Populi sur Macky et la présidentielle. Il m'a tout donné, m'a choisi comme son PM, candidat et successeur, déclare-t-il. Et dans les jours à venir, nous allons dévoiler notre programme pour la présidentielle de qui va fédérer le peuple sénégalais, annonce Amadouba, qui soutient que le titre foncier de Massalikul Jinan est le seul qui a été signé dans son bureau. Et dans Walf Pendant ce temps, Source A signale derrière le gros malaise autour du candidat de Beno Bokuyakar Amadouba, Djoufsar et Karim Fofana. En effet, selon ce journal, Abdoulaye Djoufsar en veut à mort à Abdou Karim du fait des cérémonies de remise des parrainages que ce dernier initie depuis quelque temps alors qu'il n'est pas le délégué régional de Dakar. Et en pleine réunion de la CCR, l'ancien maire de Yoff a déclaré n'avoir été mêlé ni de près ni de loin que l'ex-ministre de la Santé, qui a menacé de démissionner, a ensuite apostrophé un membre du cabinet du candidat de Benno Bokoyakar en ces termes. Quand tu verras Amadouba, il faudra également lui dire que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Fin de citation. Et enfin, Sousa rapporte qu'hier, en lieu et place d'une cérémonie de remise des parrainages, on a eu droit à de violents affrontements entre camarades de Benno Bokoyakar où plusieurs blessés ont lors de la cérémonie de dépôt de parrainage initiée par le ministre Abdou Karim Fofana. Fofana, qui a tempéré même au cours de la cérémonie, appelant à terre leurs divergences et régler les problèmes pacifiquement. Ce dernier, selon ce journal, a collecté parrainages pour leur candidat Amadouba. Et pendant que le regard, qui souligne que les différents candidats à la candidature dévoilent les chiffres de la collecte de parrainage, constate une guerre des chiffres, Direct

sa Et dans 24 heures, Gumarius Sagna alerte que des gens rôdent autour de chez lui. Macky Sall lui était chez les siens, nous apprend Vox Populi, qui revient sur son intronisation comme grand lame international. Par conséquent, ce journal le signale au pouvoir pour l'éternité. Aux dignitaires des Salsabé dans sept pays de la sous-région, Macky se dit héritier d'une lignée où les valeurs de courage, de respect de la parole donnée, d'honnêteté sont cardinales, mais aussi de refus, refus de l'inacceptable,

Afrique et rapporte que les paramédicaux peinent à avaler la pilule. Et c'est au même moment que 24 heures nous apprend que le Sénégal ne compte que 60 spécialistes de l'ERL, pendant que Réumi Quotidien signale le Sénégal loin des standards relativement à la disponibilité des enseignants chercheurs sont répertoriés pour étudiants. Justement, Besbi nous conduit à l'UCAD, une université à travers l'histoire qui perd sa lumière, mais l'IFON tiennent le flambeau, selon ce journal où le professeur Souleymane Bachir Diagne évoque la révolution iranienne et l'islam dans les universités. L'observateur propose un dossier sur les enfants envoyés à l'émigration par leurs parents et morts en mer, une enquête sur les mères porteuses de drames qui portent le lourd fardeau du sentiment de culpabilité. Et livre les avis d'un juriste et d'un psychologue sur la question au moment où dans Libération, Juan Branco a sciemment laissé

à Barça, Ghana défie Manchester United et Jackson sera à Newcastle, annonce le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises Sunulombe se penche sur l'affiche Alun Seimodo Anta qui constitue le choc de feu de ce samedi. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux de ce samedi. Très bonne lecture, excellente journée à tous.